discipline dinañ ci tànn ñoo xam ne daañ lañ dem leen jëli ay parrainage ay fiche ci biir parti bi ngeen dem uti parrainage wala ngeen déglu ñu waaye noone it noone it dinañu seet ci suñuy alliés ñi nga xam ne ànd nañu ak ñoom te déclaré wuñu candidature pour demal seen bopp ba fi ñu wax ni te amaana peut-être duñ ko déclarer ba keroog ñu toll ci war a dugg ci parrainage bi ndax ñu ko déclarer te di suñuy alliés am na ñu ko defagum te am nañu courtoisie ak yéegee bu doy woo nañ ma ci téléphone ne ma ah ñun de dañoo décider nekk candidat may loolu lu baax la parce que suñu ànd ci biir Yewwi Askan Wi loolu la ñu waxtaanoon dañuy dem ànd ci élection locale ànd ci élection législative parce que élection yi élection raw gàddu la da ngeen di boole dajale waaye bu ñu eggee élection présidentielle ñu fi nekk ñëpp ay leader lañu ko ci xool boppam ba yaakaar ni bëgg nga ko te mën nga ko am nga sañ-sañu dem wut sa candidature teewul nag dañuy bàyyi yeewi askan wi mu nekk cadre boo xam ne peut-être bu ñu mutualiser dajale suñuy doole dina gën a yombal supervision élection yi mu am ñoo xam ne ba léegi décidé wuñu ñu candidat yi décidé and ak ñun and ak man en tant que candidat fas yéene sax taxawal coalition bo xam day day doon coalition wu son ko président mané ci ñooñu ci biir ñooñu bu ci tollé gannaaw ñu ñi nga xam ci parti bi lañuy bok mo xam ñett lañuy doon wala juroom wala fukk nga xam dañ leen naan dem leen uti fiche nañu seet tam ci suñuy alliés ñi ñu ànd ak boobu ba léegi ñoo xam ne dañ leen naan yéen it dem leen ngeen jël fiche parrainage muy suñu at yi ñu gën a jege ñoo xam ne tey ñu ngi ci benn cadre di jëflante di liggéey ñooñu dañ leen wax ñoom it ñu dem uti seeni fiche de parrainage ñu téye ko ba nga xam ne dinañu am option yu bari parce que dañuy wax ne jënax boo buggee mucc jënax bu buggee day bari baax tubaab ne on ne met pas tous ses œufs dans le même panier jël soo ame ay nen doo boole leen yëpp ci benn benn benn benn pañe ndax bu pañe ba daanoo rek dootoo dese leen yi da nga dugal ci mbuus mi yi nga dugal ci pañe bi li nga dugal leen ci bool bi loolu stratégie boobu lañu bëgg a reproduire mooy dañu fexe ba ñuy jël fiche bari ñu fexe ba ci ñooñu jël fiche mu am ci ñenn ñu am parrainage bu mat bu mucc ayib loolu mooy suñu stratégie buñ leen ko waxee nag bu ñu dem uti ko bu boobaa bu dee man bàyyi nañ ma ma dem ut sama fiche pare euh, sama parrainage déposé ñoom it dañuy déposé ñi am ci ñoom ñi jot a am ci parrainage ci ñoom bu dee tere nañ ma man bu tere nañ ma du tey dinañu am nu mu tuuti tuuti tuuti ñaar wala ñett wala ñeent wala juróom ci ñooñu ñuy jàll te loolu bokkul ñi nga xam ne suñuy allié suñuy allié lañu peut ñoom teel nañu décréter lañuy nekk candidat waaye suñuy allié lañu lu mel ni euh, soxna Aïda Mbodj ak ñeneen ak ñeneen sumay may lim dinaa juum nga xam ne suñuy allié lañ te ñëpp xam ko ñu bokk ci yeewi askan bi bu ko defee bu ñu génnee ci mbir mi ba dem conseil constitutionnel ba conseil constitutionnel pare li muy def ci parrainage ci contrôle juridique des dossiers bu ñu génnee ci loolu ba ñu ne ñu am nañu ay candidat ñu seet ndax kenn moo jàll ci ñun wala ñaar wala ñett wala ñeent ba juróom waaye l'essentiel na ñu am ay candidat bëgguma sax ñu am benn candidat ma bëggu ñu am ay candidat bu ñu yàlla may loolu nag ngeen xam ni ñoom seen pexe na sax na bu ma yemoon rek ci man ne man rek may nekk candidat ndax daloon na ñenn ñi 2019 bu ma yemoon ci ne man rek kay nekk candidat bis buñ ma jekkoo rek projet bi yëpp ñàkk candidat boobaa dañuy obligé génn ci projet bi dem seeti feneen fu ñuy jàppale ji waaye bu ñu fexee ba jàllale ay candidature donte jàpp nañu candidature Ousmane Sonko projet bi mucc na ci wàllu candidature te bu muccee ci wàccu candidature mucc ci boppam tax bu soobee yàlla bu ñu amee candidat dem élection gagné au premier tour muy Ousmane Sonko muy beneen candidat buñ ko amee incha rabbi gagné au premier tour kon lii mooy stratégie bi mu des nag bu ñu demee ba jàll ñu ne ah yàlla may ñu am ñaari candidat yàlla may ñu am ñeenti candidat di ma ne naka laay doxalee mbir mi dama waxtaan ak ñi ñu ko seqal ñi waxtaan naa ñoom waxtaan ñu xóot ma ñun ñëpp doyloo nañ la yow lépp teg nañ ko sa buñ ci tollee foo joxoñ foofu la loo décidé noonu la bu dee sa candidature jàll na wax ji jeex ñun ñëpp dañuy désister ñëw taxaw sa gannaaw ñu dem defi campagne gañe bu dee nag sa candidature jàllul bàyyi nañ la yow nga xool nga seet nooy tànnee ki nga tànn rek ñu xam ne kooku la ma leen ciy gërëm leen sant ñoom ñëpp ndax loolu confiance la estime la te du lu tuuti ci man ma donc bu ñu yàlla maye ba ñu jàll ba am ay candidat yu ñaari schéma ma mun a am te dinaa jël décision diggante ñaari schéma yooyu te bu ci nekk dinaa def ay vidéo teg ba nga xam ne buñ ci tollee su ma leen ne lii mooy choix bi rek yéen samay mbokk sénégalais dinañ leen tegal vidéo bi mu ngeen ko ba yéen ñëpp ngeen xam lan mooy décision bi kon ñaari possibilité moo am bi njëkk bi mooy ma tànn benn candidat yenen candidat yeb desisté ñëw ne kooku ma suñu candidat jappalé ko ñepp taxaw ci gannaawam ñu dem defi campagne campagne bi nak ñu tek ko ci programme bi nga xamné moy sama programme bi ma liggéey ma nak cadre parti bi ñu ne fi ñu ne bitim rew ñu liggéey ko muy programme Sonko 2024 Sonko président 2024 ci programme bo xamné ne lu ndax mooyoon programme mu deux mille dix neuf bi dañ ko toggaat rek defaraat ko actualiser ko dugal ci loo xam ne lu koy gën a jëmmal la ak lu koy gën a taaral ak lu koy gën a matale loolu mooy doon programme bi quel que soit le candidat ñu ànd ñëpp bu dee ne kii mooy candidat bi ñeneen ñëpp ma ne leen léegi da loxo daal ñëw jàpp ci gannaaw candidat bi ñu ànd liggéey ñaareelu possibilité bi mooy ma bàyyi ñu am candidat yu bari waaye ci biir candidat yooyu dinaa def sama déclaration wax ci Sénégal yëpp ni kii mooy candidat bi kii lañu war a woteel kii mooy candidat bi mooy candidat projet bi moom lañu war a woteel ñeneen ñëpp nag candidat projet bi lañu waaye dañuy ñëw jàpp dooleel candidat bi sans pour autant ñu bàyyi seen candidature di nga ma ne ah loolu est-ce que du andi confusion est-ce que loolu du tax ñëw ñàkk ay voix lu mën a nekk la waaye def nañ fi combinaison yu gën a compliqué yooyu ndax bi ñuy def intercoalition wàllu yeew yi ñëpp jàppoon na ni du jàll parce que day nit ñi duñu retrouver wu liste département sàngam yeew yi koy jiite ñu dugal ay député wàllu liste département sangam wala moo koy jiite ñu dugal ay député Yewwi ñu ne dina tax ba nit ñi duñu comprendre ndax suñ ñëwee fekk bulletin Yewwi ak bulletin euh, wàllu te war a voté wàllu foofu et non dina am ñuy jum toujours dem jëli bulletin Yewwi dugal te loolu dañ def ñuy ñàkk ay muy dëggit waaye gis nañu yàlla defal ñu sutura ba mu dox kon mën na am ay inconvénients wala ay lu ci nit di ragal waaye mun na am tam avantage avantage mooy lan mooy bu ñu amee ñaari candidat wala ñetti candidat wala ñeent Sénégal yëpp xam ni kii mooy candidat principal bi ñeneen ñi nangu ko ñoom it day tax ñu mën a démultiplier suñu ko campagne fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñaari temps d'antenne wala ñett wala ñeent bu boobaa kenn ku nit dina mën a jukki lenn programme bi te ñeenti candidat bokk benn programme commun muy programme bi nga xam ne mooy ma leen wax sax kon fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñetti temps d'antenne wala ñeenti temps d'antenne wala juróomi temps d'antenne gën a mën a waxtaan ak Sénégalais yi ci li nga xam ne mooy suñu programme te Sénégalais yëpp xam ni programme boobu mooy programme Sonko 2024 donte tere nañ ko mu nekk candidat ku déglu programme boobu déglu nga Ousmane Sonko quel que soit candidat boo jukki wax kon loolu dafa am solo ñaari option yi moo ci am te bu soobee yàlla buñ ci tollee dinañ leen wax ban mooy suñu ci ñaar yooyu quel soit décision bi ma jël nag damay ñaan ñëpp nangu ko ñëpp euh, Tak seen ndigg nangu li ñu dee décidé ba paré soobu ci liggéey bi quel kan que soit ku ñu tànn ak ku ñu ndax projet passif bi du projet individuel bu dé man ma mëna renoncer à tout pour projet bi jital projet bi ba man mu jaral ma man ba baña a féetale sam bop ci kanam baña def li tubab di égoïsme moy man rek man rek ba tax mu ñoo xañ candidat kon suma keneen ku war a xalaatee neneen ak koo munti doon